Euh, ñu gis euh, jamono ji réew mi li nga xamante ne mooy corona bi mu ngi woyal di woyal di def ay jéyam di rey di faagal surtout ci côté ndaw ñi la gën a sonal bii troisième vague bii par rapport ak pandémie bi yan motuwaay ngeen di jël ak lan ngeen wax tamit askanu Sénégal. waaw ñun de pandémie bi moom wax dëgg yàlla ñun gannaaw bu ay néew ji doole lañ moom yaakaar naa ni ñu ko docteur yi waxe moom mun mënuñu ko moytu amuñu benn moyen boo xam ne mën nañ faa jaar pour moytu woon parce que du ñu toog suñu kër yi il faut ñuy liggéey ci car rapide yi la ñuy yéeg ci marché yi la ñuy dugg il faut ñuy jaxasoo pour mën a am ay lu ñu yóbbu suñu njaboot yi parce que au jour le jour la ñuy lijjanti li ñuy dundee am na loo xamante ni matuwaay yi ma dégg docteur yi wax ko vraiment yooyu ñun moom mënuñ cee tunk pour mën a moytu pandémie bi man moom gisuma ni fii néew ju doole fii ci Sénégal war naa mën a respecter mën nañ takk ay masque mën nañ euh, mais distanciation physique distanciation u yi mënuñu ko respecter parce que ñoo ngi ci marché yi ñoo ngi ci car rapide yi ñoo ngi ci Njaga Njaay ñoo ngi ci yëpp li ñu ci gën a jaaxal nag mooy ñoom ñi nga xam ne am nañ ay moyens mhm. ñoo ngi yor nañ ay particulier du ñu dem ci marché du ñu dem ci boutique yi alors que ñoom pandémie mi ngi leen di dal mhm. vraiment man dama gëm ne docteur yi waxuñu ñu lan moo xew ci pandémie bi en plus ñoom buñ dee tere ndaje yi ba pare ñuy organiser ay meeting mhm. ku mel ni euh, ministre de l' intérieur Antoine Diome ñu gis ko samedi bi passé après après tabaski bi mu mu mu organiser meeting. Mhm. te moom moo war a signer arrêté yi nga xam ni moom mooy tere rassemblement yi. mais loolu amul cohérence. Mhm. léegi ñun ñi nga xam ne ñun ñoo nekk euh, askan wi. Mhm. bu ñu gisee tamit le président de la république. muy muy organiser ay meeting. di jëlee ay nit dakaar di leen importer di leen yóbbu partout. mais loolu amul cohérence kon ñun nan lañ mën a def ba respecter mesures barrières yi loolu mënul nekk en plus que ñoom su fekkoon tey ni feebar bi dafa yem ci banlieue bi ak ci dëkku àll yi ci baadoolo yi di leen rey du ñu mobiliser autant de milliards yi ñu def pour xeex pandémie bi parce que si buru mi ngi fi te defuñu ci loolu kon dama gis ne feebar bi dafa ñëw di di ñu laal di leen laal moo tax ñu mobiliser yenn milliards yi pour xeex feebar bi mais su feebar bi dafa ñëw pour ñun kese kon dañ koy bàyyi ak ñun kon nag feebar bi comme dafa ñëw di ñu laal di leen laal mm-hmm. nañu xool yan matukaay lañu mën a jël pour feebar bi jóge fi mm-hmm. ñun ñu respecté ko ñoom ñu jiitu ci mm-hmm. mais mënuñu ñuy wax ne respecté leen feebar bi sinon respecté leen mesures barrières yi sinon dañuy tëjaat dëkk bi alors que ñoom ni ngi woote ay mbumbaay ay ndaje bërki démb open press site bi mais autorités yi yëg nañ ko soirée Wally Seck bi autorités yi yëg nañ ko Antoine si Diome moom mi nga xam ne moom moo war a signé arrêté bi tere ndaje yi organiser na meeting dëkkam selon information yi ñu jot ci internet yi ak yeneen ak yeneen kon nan lañ waxee nit ñi nañ tabaskee fii loolu amul cohérence dañ nañ gis ay professeur Seydi ñoom Bousso ñuy taxaw di ñu wax ne carrément feebar bi chaîne de contamination bi nii lay jaar li ak li mais dañu gis ne bi Macky Sall di def tournée économique gisuñu professeur Seydi mu génn wax te loolu ñun ñun la concerné ñun population sénégalaise bi ñun la waroon a waxal su ko defee même bu Macky Sall bëggee mobiliser ay nit ñun askanu ñu bañ a dem mais dégguñu leen ñoom ñi nga xam ne ñoom la seen xam-xam màcc ci affaire bi ñu wax ci léegi nag ñoom nan lañ mën a bàyyee Macky mu def tournéem bugaan topp ci di def tibb tànk mais ñu dem ñu dem ba seen programme yëpp pare ñu dégg yeneen politiciens yoo xam ne lancé nañ seen seen tournée ñu ne noo non kenn ngeen dootu fi def ay ndaje leneen lay gën a nirool mais ñi nga xam ne ñoo yor xam-xam ci wàllu sante ñoom ñoo waroon génn wax président bi ne ko lii ngay def nii day yokk feebar bi mais nan lañ mën a toogee ba loolu passé ñu ne ñu ñun bu ñu dem tabaski ji mais ñun dañuy tabaski ji même bu dee dañuy dee sax dañuy tabaski ji même bu ñu amee yeneen ñu mën a def bu ñu jaayu doole duñ ko duñ ko def masque yi ngay gis ñu di ko takk nii pour bañ a fay 3000 policiers yi ñu jàpp donc moo tax ñu koy takk ñi ëpp ci ñun ci askan wi loolu moo tax ñu koy takk mais kenn takkul masque ndax ragal feebar bi feebar bi boo xoolee ñun ñi gis nañ ñi dëkk bi surtout ci événement tabaski bi gis nañ ñëpp a feebar xamuñu lan la gisuñu benn médecin bu wax lu leer kani maanaam ñoom dañuy wane ne bu ñu defee test ñu ne am nañ temps yu positif am temps yu positiful alors que dëkk bépp nit ñi dañoo feebar dañoo waroon a génn woon ñu ne ñu nit ñi dañoo feebar corona bi moo jàpp ñëpp mais am mënuñoo faj ñëpp loolu sax moo gënoon yenu maanaa pour ñu gën a dugg suñ bopp mais chaque jour ñu def ay test 3000 tests Euh, cinq cent cinq cent personne moo positif ñi ci des amuñu corona alors que dëkk bi yëpp feebar amul cohérence ñun ñoo gëm feebar bi parce que ñoom li ñuy wax dëgguwul lool moo loolu mooy suñu problème ak feebar bi. ñu ngi lay fay bu baax ñu ngi lay fay bu baax. tur la. ah tur bi Xaadim Diop la quoi. xaadim Diop ñu fekk la fi nga xamante ne tey. nga ngeen toog te réew mi jamono ji ñu ngi si prétu corona Covid gis nañu euh, troisième vague ñëwaat na te dañ ne ndaw ñi lay gën a faagaakal ah ba ban matuwaay ngeen ciy jël yéen en tant que ñu ndaw ñi. ah ñun de personnellement ñooy nii sa ay sénégalais lan waaw yàgg nañoo nekk nag yàgg nañ ñu wax corona yàgg nañ ñu wax corona yàgg nañ ñu wax corona ñun nag avant corona sax ak yeneen i feebar ñu li doon moytu la ñuy moytu mooy. bu dul dara dañuy delluwaat yàlla suñu borom rek suñu borom moo njëkk a digle set comprendre nga moo njëkk digle set moo njëkk a digle tamit nit maandu ci kàddoom ci jëfinam ci nekkinam ci bépp nekkin rek ci àdduna te ñun loolu la ñuy jiital avant de tout li ñu suñu borom digal ndax suñu borom moo ne ina saafatu minal imaan set dafa bokk ci ngëm yàlla kon dèjà lii bu ñëwee tamit am na yeneen feebar yu ko fi jiitu tamit da doon faagaagal di rey waa liñ ci mën a wax euh, lu gàtt rek lay doon dañuy dañuy dañuy xool li nga xamante ne bii tamit moom moo ñu war rek ndax nit ñi moom bu ne leen moytu rek dañoo war a moytu te dinañ moytu comme nin ko nin ni ngeen ko nin nin nin ko diglee ni ñu ko diglee dinañ moytu waa xam nga dinañ jël suñuy responsabilité liñ mën a daw dinañ ko daw mais li ci des tamit dañ koy bàyyi ak loxo yàlla suñu borom ndax yaakaar naa ne feebar bi moom yàlla rek la ci mën a musal muccal la ci du kenn ku ci mën a mucc musal la ci même bu même bu même digle yi sax ak tere yi mën nga ko def mu gën a gaaw ci yow loolu ci suñu borom la compte mais du tere tamit comme digle la ak tere la du tere nan moytu waaw waaye nag yàlla rek moo ci mën a mujjal doomu aadama ñun nag ñu ngi moytu tamit comme ni nga ko waxee waaye tamit ñun ay sénégalais lañ te dañoo dañoo son dañoo pauvre su ñu bëggee ñu ne corona troisième vague dëgg dëgg la état bi na na wax ak askan bi ñu ne ni ngeen di def ni ngeen di ak moom ni ngeen di doxal ak corona bi parce que ñun ñun mënuñoo tëj suñuy kër sama grand bi mënu tëj këram kii mënu ndax dañu am lu ñu fa kon il faut que rek ñu xool ñun nan nañ koy doxalee ak ñun ak tous les citoyens de sénégalais ñu xool ni ñuy doxalee ak feebar bi ba mën koo ba mën koo waaw xaw xaw a xool nuñ koy écarté daal xool waaw xool nuñ koy écarté boo ñëw état bi def na communiqué que sénégalais sénégalais yi mhm. seen ñàkk ba na respecté feer bi moo tax mu gën a euh, maanaam yokkuwaat nii ci réew mi waaw waaw loolu loolu dëgg la ndax booy seet dèjà état bi tamit ñoom euh, dañ ñoom kenn ëpp leen ci part de responsabilité ndax ñoom ñoom la ñuy ñi fab xas teg ci kanam ba pare kon ñoom communication bi ñuy def ak doomu adama yi daa war di nekk lu dëggu di nekk loo xam dañ ciy teg seen loxo ak seen bët man mii vraiment affaire bi daanaka gëm woon ma ko affaire bi gëm woon ma ko mu ma ko dee gëm ba koy gëm temps yi laa ko gën a gëm laa laa koy xalaat ak bàyyi xel mais mosuma koo gëm sama àdduna c'est parce que lu waral ñu ngi naan la corona fii corona fee corona te amoo ci ça le problème moo tax mënu ñu ko gëm mais nag ñoom seen wàllu bopp ñoom jiiti nañu mel ni ñu war a mel quoi ñun ñu topp seen ginnaaw ñu mel ñun ñun dinañ dinañ dinañ mën a am ay ay kii yoo xamante ne bii ay ay ay xam nu mu ko mën a waxee noonu maanaam ay ay nit ñoo xam ne ay idole yoo xamante ne lu ñu leen wax ñoom lu ñu wax dinañ ko gëm mais su fekkee dañoo bëgg a jiitu ba pare xam nga di def ay affaires yoo xam ne nii xam nga tey yaa ngi ne ci lii suba yaa ngi yaa ngi xëcc ay ndaje ay mitin fii ay nangam sàng dajale ñi ba pare bëgg a ñëw xëy naa na corona kook kook noonu man mu amul lu ma ci lu ma ci apprécié wu ma ko daal apprécié wu ma ko maanaam lool boo nee corona li mu gën a bañ la ne mbooloo da ngay isolé wu ñi ba pare mais mënoo yow nga dajale nit ñi ba pare wëlbatiku naan leen corona man loolu man sama xel nangu ko quoi sama xel bu gàtt. feebar bi bari na actuellement pandémie bi lan ngay wax ci li nga xamante ne mooy vaccin yi parce que am na ñoo xam ñu ngi koy critiquer di ko ŋàññi yéen ban gis-gis ngeen ci am yéen askanu Sénégal ah man de wax dëgg yàlla ñàkku naa ba pare man jël naa sama ñaari ñàkk yëpp maa yore sama carte du ma sañoon ñëpp dem ñàkk ji daal lool laa bëgg ndax ñàkk yi amul benn problème ndax man ñàkku naa ndax jabitig laa ñàkku naa te gisuma si benn euh, problème daal waaw maa ngi si jàmm macha allah te maa yore sama carte tam waaw ma sañoon tam ñuy jël masque yi boo liggéey ba wàcc nga dugg si kër raxas ba mu set jënd gel di euh, kii sa loxo yi sa gel say njabootam bu ñu jàng jee ba wàcc itam nga leen ñu dem raxasu bu ñu raxasoo jël gel def seen loxo di moytu dajaloo bu bari bi si biir askan bi daal waaw loolu laa bëgg mais gis nañ fan yi feer bi muy gën a law di gën a bari di rey tamit nag ah, yan moto ay ngeen wax tamit a ah, askanu Sénégal ak am na ñoo xamante ni tamit gëmuñu li nga xam mooy feer bi dañ koy lam-laamee waaw am ñu ko gëmul waaye ceeb moom am na moom ndax boo demee si armeer yi léegi lu ñuy denk si armeer dafa bëri si doomu aadama ndax démb rek sam papa ne na yoof ba mu fa demee lu mat juróom-ñaar fukki rob ñëw na fa te yooyu yëpp affaire feebar bi la ma daal ñu dem ñàkku ji ah di toppatoo di daw groupement bi di raxas seen loxo di gënd ay gel di takk masque dama damay jaay masque sax boobu ba léegi masque yaa ngi jar ma wax dëgg yàlla waaw. wala mu doon wax. ñu ngi lay jaajëfal bu baax. merci beaucoup merci. salaamaaleykum papa maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. laaj la. man Mamour Ndiaye laa tudd. papa ñu gis jamono ji pandémie bi yokk na troisième vague amaan na ñëwaat na feer bi mu ngi faagal lu baree baree bari yan motuwaay ngeen si jël en tant que yi nga xamante ne tey yéenay chauffeur yi fii di seen fii place publique la ak seen i client waaw mbas mi de moom liñ ci jël mooy li médecin yi wax rek raxasu takk masque fagaru daal li ñi tere ñu bàyyi ko. li ñu digal ñu di ko def man de loolu laa ci xam ak jéem a dem vacciné wu nag jéem a dem nga jël vaccin yi li ci des nag ñu bàyyi ko ci loxo yàlla waaw man loolu laa xam. waaw Sénégalais am na gëmuñu feebar bi. am na si ñoo xam am pagay bëri na li gëmul feebar bi moo gëm li ëpp feebar bi ñi gëmul feebar bi ñoo ëpp fuuf ñu gëm feebar bi mais nag mbas ñun yàgg nañ Sénégal feebar bu ne ñëw na fi ay ñàkk yi ñuy ñàkk nii moo ko fi jëlee. sibiru vaccin moo ko fi jële ngas amatul ci Sénégal yow mii xam naa ngasoo xamoo ko sax vaccin moo ko fi jële ah njàmbataan vaccin moo ko fi jële kon bu feebar ñëwee ñu jox ñu vaccin ne vacciné wu leen feebar bi kii dañu war a vacciné wu loolu mooy yoon loolu mooy yoon man vaccin yooyu yëpp jël naa leen waaw waaw jërëjëf